asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi di leen nuyuwaat bu baax di leen ziar di leen bëggee yéen ñuy siiw si wasaare lamb wasaare TV kon diñ koy defee rek di baal ñëpp àq di baal ñëpp àq euh, kon nañ koy defee rek à chaque fois lépp lu bëgg dañ ciy dox yéen yéen a ma ko laajoon tey nag wax dëgg yàlla ñu def ay recherche ba indil leen ko ñu fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ne moom mooy làmb gëj nañ koo gis nag wax dëgg yàlla. dañ waxtaan ak moom ñu indi leen nag xamante ni moom mooy Saalum Saalum borom kuuru Baye Fall xaw ma nag ba xam kuuru Baye Fall mi fi ba léegi wala nekk fi incha allah dañ ci jéem am lu ñu leen ci kàttan yàlla tey nag ñëw fii ci benn tali ñoo fas yéene waxtaan ak moom wax dëgg yàlla mu nekk suñu frère boo xamante ni tout le temps buñ ko soxlaa rek day yomb si ñun ah champion maa waaw maa ngi lay fay. Euh, di wax onge billahi mina sheytaan rajim di nuyu senegaal yëpp di ñaanal samay waajur fii ñu nekk mu gënal leen fu ñu jóge yàlla yëral leen xare leen àjjana di masawu waa senegaal yëpp ci xew-xew bi fi am muy coronavirus bi ñuy ñaan xam nga muy nattu suñu borom bi ñu yàlla teg mu teggil ñu ko nu mu gën a gaawee waaw. Saalum Saalum moom moo nuyoo borom pour Baye Fall Saalum. Mm-hmm. gars yi namu nag léegi dañ laa gis. waaw maa leen raw maa leen raw ngi toog mooy li ma la wax rek saison bi bëggoon naa ci bëre mais comme yàlla mooy dogal. Mm-hmm. indi fi lu ko neex. Mm-hmm. waaw muy feebar bu fi am moo tax kenn talul dara. ñuy ñaan mu jugee fi rek ñu dellu ku nekk delluwaat ci li nekkoon. Mm. ku nekk delluwaat ci li nga nekkoon Saalum Saalum pour ñi nga xamante ne ñoom lay euh, seetaan sur wasaare làmb wasaare TV ñu gis ni wax dëgg yàlla danga nekkoon mbër boo xamante ni mën nañoo wax ni yaag waa génération te ay Balla Gaye ay ñoom Modou Lo mën nañoo wax ni yéen a jàpp xarandoo tey boo wax ci li nga xamante ne moom mooy sa parcours kan mooy Saalum Saalum lan nga may wax. waaw Saalum Saalum euh, dafa nekk mbër boo xam ne Baye Fall la xam nga taalibe la. kuy nangu ndogal la tamit waaw nekkoon ci làmb ji bëri victoire am ay tolof tolof waaw mais bàyyiwuma ndax ba léegi sama maa ci làmb yi awma lu dul làmb. Mhm. sa enfance fan nga ko defee Saalum. waaw sama enfance euh, lu ci ëpp maa ngi ko defee fii benn tali ñaar tali Grand Dakar HLM mais Pikine laa juddoo. Mhm. Ah, Pikine laa juddoo sama papa gaañu ñu miiras maam fii kër maag samay frère si laa ñib see benn tali mm. Pikine ñëpp xam nañ ni Pikine ah, wax dëgg yàlla ku fa nekk rek lu ci ëpp dañ naan ay mbër moom ñoo fay nekk. Mm-hmm. yow tey ah, Pikine nan nga débuté woon foofu nga débuté woo sa carrière wala da nga ñëw fii. waaw man pikin bi ma fay jógee xalaatuma woon sax dinaa nekk mbër. ndax sama papa dafa teel a gaañu 86 euh, la gaañu. man maam ngi fa jógee ay quatre-vingt-huit boobu mënaguma bëre mais fii laa nekk jóge fi nekk daara dem Saalum nekk sama kër maam samay nijaay mën a bëre nag man ci samay nijaay laa jàngee bëre. ok en xam te ne dañuy nekk daara. Mm. pour mën a nekkaat mbër day xaw metti mais ba nga jógee daara da nga ñëw nekk bër wala yow euh, comme que da nga fekk say nijaay di bëre. Mm. loolu kon yomboon na ci yow. waaw ndax ci biir daara ji sax dama daan bëre di wàlli làmb da des fois comme région Saloum bi day dañuy tëgg làmb bu neer bi jeexee ay Kër ma jibeel ay Ndofane xam nga wàkk nguuna ay Njawara côté yooyu dama daan souvent bu làmb tëggee foofu dama daan dem di xool di seetaan làmb di ànd ak samay nijaay am ay nijaay bu daan bëre bu tudd kaleera xam nga bu daan dem dañuy takk ay sareet topp ko waaw ma deretu bëre bi nag duggee. Mhm. fa la deretu bëre euh, duggee. nga ñëw àggale ko fi nga xamante ne moom mooy benn tali. waaw bi ma paree foofu dama ñib si waat Dakar bi ma paree jàng alxuraan bi ma ñëwee Dakar fekk booy Bambara di organiser làmb euh, ñaar tali ma dem benn jour seetaani waaw micro. demee seetaani xam nga gis gaa yi di bëre ma ne ah ñii di bëre ñii maa ndax bëre ñii maa leen mën. jaay na ma waay yow yow foo mënee bëre ma ne leen ñii maa dàq bëre. waaw après ñu ne nii deuxième jour ma ne leen damay ñëw damay bëre deuxième jour bi ma ñëw fekk boobu ay soose ay papa saw gaa mhm. miinu ma leen sax boobu maa ngi a jógee Saalum xam nga deuxième jour bi ma ñëw ngemb première mbër biñ ma njëkk a jox dama ko jàpp di ko windeel. ban mbër ci arène bi sax moom lañ doon wane sport seenu conke sin même arène bi dama ko téye di ko windeel buy sport yi doon commencé moom lañ daan wane <laughs> loolu ñun saalum saalum ñu ngi koy wax firi firi jàpp mbëri di waaw foofu la turu saalum saalum bi jógee waaw ñu commencé naan saalum saalum bi saalum saalum bi ngay jàpp mbëri di daan saalum saalum bi sa waaw fa saalum saalum bi commencé mhm. waaw mbapat jeex ma dem Assane Diouf waaw fekk fa gars ñoom Tapha maam Góor Diouf gars yëpp Mm-hmm. ma daan leen ci benn guddi. tafaatin uh-huh. daan naa ko benn guddi. Uh-huh. maam góor juuf papa Sow. Hmm? ñoom ñëpp. ay ay Pape Sène. gaa yi yëpp mbapatu Assane Diouf. ok ñëw fekk leen fa ñoom ñëpp. waaw ma jógee fa mbapat bi tëj Tafa ngay organiser ma ñëw Fass. mais dañuy taxaw foofu tuuti ci mbapatu ah. kii Assane Diouf bi nga wax. Ah. da dem fekk fa Papa Sow. Papa Sow. fekk fa Tafatine. maam Góor Diouf. ay ñoom Kayre 2. Mhm. waa ay Fadiga. boobu gars bëri bëri falaan fekk ay ay kii Pape Sène mhm. waaw. da ñu bokkul ci mbapat bi ñoom ñëpp ma fekk leen fa. Mhm. mu fay ñëw fekk naa boobu ñoom Pape Sène ñoom Papa Sow yi ñoo téye laa ji ay Balla Diouf ñoom ñëpp. léegi sa combat Papa Sow Sow dafa ñëw jour boobu Ousa moo ko indi. may daan Ousa ñëw ruube làmb ji. ne waaw diggante Papa Sow ak Saalum Saalum teg naa ci 5000. Assane Ndiaye boobu nekkagul promoteur mais sama fan la woon ñoom mbapat waaw. ñu maa dugal ci làmb ndax dañ ma topp ci mbapat yëpp. moom mu yëkkati dix mille gars yi teg gars yi teg ba mat xaw ma matoon na ay quarante mille gars yi tëgg combat bi. Mhm. mais combat bu gaaw. waaw bi ma jël bu gaaw dama koy daan avant may ñu may jox xaalis bi Ousa daa dawaat ci arbitre bi këfaat cinq mille am. <laughs> waaw. léegi euh, après Tafatine. Tafatine jël bu gaaw matul cinq secondes. lépp ci benn guddi gi la. lépp bu baax. Mhm. de ah. ko nu boobu waaw tubaabu joor sax indi woon na doomam dem si yàlla si jour boobu doomam ji indi woon na ko moom it dama ko daan kii nu mu tuddati léegi temps na ci làmb ji sax dégg naa mu ngi États-Unis doomu tubaabu mhm. moom sax ñu ma daanaale la bokk. waaw mhm. ah. ay mbapat la woon. waaw ay mbapat euh, deux ans toog naa fa mbër ma suma daan. mbër yëpp ñoom ñu am na ñoo xam ne sax mënu ma leen lim ay nees. Mhm. da daan. non dama leen daan fooye du ma ñoom ci làmb. waaw. Ah. mbapatum mbañ bu tëngeej ñëw naa fa di bëre daan ñëpp ba kii seen mbër bi ama neex dama ko yenu ba ci kaw lébu lébu yi samay loxo lañ ko nangoo ci air bi làmb ji tas jur woowu lébu yi mbañ sax moo ma dimbali moo ma dugal këram may ñu xaalis ñu jël car super bu muy bu ñu yóbbu pour ñu ñibbi Dakar. Mhm. dama tas mbapat bi daan lébu yëpp waaw kon daal mën na ndax daan na ay champion. macha ñëw naa mbapatam muy arbitre may daan bëri daan bëri daan bëri ba mu ne xanaa Fass fii góor fanaanatu fi. looy fa nekkoon. ñëpp laa daan. comme ñan lan ñan ñan waaw mooy ñi fa nekkoon rek. ngay dóor di daan rek. <laughs> waaw jugee fa ñëw mbapatu Maurice. Mhm. su jum mhm. daan mbëri fa nekk ba Maurice bi organiser lamb bi. Mhm. daa mujj meer sumpeegu ma daan ko. làmb ji tas ma jugee fa mbapat yi waaw man man lañ doon way naan Saalum nee daa bëgg a doon buur ci làmb ji. waaw boobu maa doon buuru mbapat yi. Mhm. fu mbapat am presque man li ma def mbapat sax defuma ko ci arène. Mhm. parce que mbapat ngay xamee mbër. Mhm. ndax arène saas la. des fois nga daan mbër mbër daan la sax te fekk yaa ko mën. dal na ma ci ay man euh, mbapat. ay quatre sama poids bu bëree bëree bëri quatre vingt dix kilos mosuma ko weesu. Mhm. waaw quatre vingt dix kilos mosuma ko weesu. Mhm. lii avec Fra mu dugg euh, maa ngi ci dugg waaw deux quinze août deux maam Njambaan commando. si laa njëkk a moom la ñuy wane sport chez nous. mooy ko mooy waaw conge sin. Euh, trente mille. Mhm. avance quinze mille. <laughs> ku tëggal sëñ moo ko tëgg. Uh-huh. Ah, ma daan ñu fayaat ma quarante mille maag dolf. dolf benn. waaw ma dóor ko mu daanu. Uh-huh. si laa jógee bëreeg yaa jàmme bëreeg Matar Gueye. Uh-huh. bëreeg Zos. mais sa combat ak Matar hmm. ah, bu Thiès. waaw Matar Gueye moom fu mu ne sax Basirou. Ah. <laughs> ah ñu gis ni yow say combat da ñëw rek yéeg. Hmm. ndax am na ñoo xamante ne peut-être dañuy bëri ne dañoo bëgg Saalum comme que yoon daanaka te bërikat nga. Mm. nga nga décortiquer ni combat yi sa combat ak Matar Gueye combat boobu lan moo taxoon nga jokkoo. waaw parce que Matar Gueye dafa mënoon bëree. dégg naa dafa côté Kajoor bi région boobu yëpp jeexal na ko Diourbel côté yooyu yëpp la daan gars indil ma ko waaw. mais boobu nga ko. boobu xaw ma ko mais xam naa ni daanaan la waaw. Mm-hmm. RFM ba léegi sax da ngay dégg ñu koy teg Saalum Saalum Matar Gueye Saalum a ngi dóor Saalum a ngi dóor waaw dóor yi métti laa ko dóor combat boobu. waaw parce que man mbëru amateur la man du ma mbër bu yur ay fan si club man amateur yee ma bëgg ndax may mbër bu buy bëree masul am machine man damay ñëw def fulla def fayda ñëw bëre daan baa ma daanu. Mhm. waaw loolu laay bëree ma bëree Matar Gueye xam nga jugee ci jël Zos. ju ak waaw maag Zos moom dafa tricher. no dafa tricher parce que li wax mu tricher ci sama yërmande la ma daane parce que dama ko dóor kuu bët bi toj mu signalé ma bàyyi pour man arbitre daa sifflé moom mu continuer action ma jonkan ñu jox ko victoire. Mhm. Ah, mais waaw ñu jox ko jël. Mhm. mais nee naa bi mu jógee nee naa ko da nga ndax boo boo yuuxul woon ne da nga gaañu duma la bàyyi. Mhm. waaw. nga jógee ci Zos. mu jógee ci Zos daan Gaal Ndiaye. si laa yëg grand combat. ok sa premier grand combat lañ la fayoon. Euh, deux cent mille. deux cent mille. waaw. boobu Gora nga ko. non dégg naa ni champion la. Mhm. te ndaanaan la. ndax keroog bëre naa ak man bëre bu metti drapeau Souleymane Nene Ndiaye maa ngi ko bëree gi ngi neew moom it dama koy dóor mu daanu. ko dóor mu foofu. ma jógee foofu ñu jox ma tampon ndaw. tampon bi ma koy jox xaw ma ko bi may bëree moom mu ngi pesé cent vingt kilos man maa ngi am quatre vingt douze quatre vingt dix kilos quatre mais quinze jours boobu sama ménagère da doon saaga sëñ Modou Niang. nan ko yow dooni yow yow da nga bëgg a sacrifier booy bi yow xale bu ndaw bii ngay jox kii ponkal bi. boobu ku nekkoon sa wala ko Mbaye Thioune kii dama koy tuuma dama koy daan. boobu yaa mu wax ma ne ko kii dama koy daan. Mhm. te dama ko daan. dama ko daan jël bu rëy. mbuur mhm. si laa njëb see Dakar. ñu jox ma El Hadj Diouf. boobu El mu ngi boq bal bi. di mbotaate rek. amagul defet maa ko njëkk daan ci làmb. combat boobu laa njëkk a lekkee million. boobu ñaata lañ la fayal. boobu fay nañ ma un million deux cent. léegi ko dara bégalee ko sama yaay rek. jëgoo jox ko sama yaay mu jël li mu soxla li ci des ma jox ko sama mag mu denc. Mhm. waaw. après ba nga jógee foofu nag. ma commencé di dégg gaali nag commencé xew. waaw bi ma daanee El Hadj Diouf. Mhm. jugee ci El Hadj ñu jox ma Boy Sey drapeau Pape ja Pape Diop maire de Dakar. Mhm, sa nekk ndaanaan. waaw nekk koo xam te macha allah def nag fa efla. Ah. combat boobu noonu. si leen ko tuddee si lañ ko tuddee Phénomène de Pikine. ci combat sama combat ak moom lañ ko ko tuddee. combat bu métti. combat bu métti. Mhm. yóbbu naa ko ci ardo sept fois. waaw combat bu métti. si lañ ko tuddee phénomène de Pikine ba léegi. ma jugee fii nag si lañ ma joxee Balla Gaye. Mm-hmm. boobu Balla Gaye moom it mu ngi lëmbee. Mm-hmm. boobu nag taayoo nag nga indi cour Baye waaw. mais nag combat bu gis ne dañuy contesté. non combat a daan. parce que mais mais combat boobu nan mm-hmm. dama ko daan. mais boobu xamu nga ni boobu macha allah. waaw mais dama gëmoon ni kii maa ko mën. dama gëmoon ni maa ko mën. maa ko dàq bëre. te jour boobu moom moo bërewul normal mais bu bëre woon normal làmb ji du yàgg. ndax la ndax instant yooyu maa ko jiitu ci làmb maa ko ëpp expérience ci làmb. te gënoon a pare ci làmb ji. moo tax bi ñu bëree. combat bi metti ci moom. parce que man dama dëgg dama gëm ne nii man ay doomu mbër laa yooyu man dama gëm sama bopp man dama jàpp ni góor la man kuy góor rek waroo ma mën ko man loolu laay bëree. taxaw ma jaay ko fulaa te moom it muy gaynde nag ndax du ragal ndax ba léegi mu ngi koy wax ndax nee na bi mu jugee ci combat boobu une semaine ruy lay naan mm. <laughs> uh-huh. kon du ragal. Mm-hmm. kon yow waaw nan nga bi dafa mbot ma yokk ko. mu dafa mbot colal ma yokk ko moo ma ëpp loos mu samp loos bi. ma dóore ñëw. bi ma ñëwee mu daanu mu ma ñëw yekk dama feel loxo bi wër ko ndomb. arbitre bi àtte. ma jóg gars yi nii nii ma foo ne joxe jël. Mhm. ma dégg gasoo xam ma nan lañu wax ñu ne non dañuy bëriwaat si lañ bëriwaat bëriwaat ba temps bi jeex ñu def prolongation mu door ma daan. Mhm. Mhm. Balla Gaye daan la ñoo nekkoon combat boo te dañ cee wane sa bopp. Ah. ngeen xeex ba dugg boîte vocale ñu bëri découvrir at nga jugee ci Balla dem fan. waaw bi ma jógee ci Balla Gaye laa demaat ci Abdou Diouf. waaw. nga dugg géejawaay dugaat géejawaay. lu waral loolu. non dara man maay mbër bu bu man un contre tous man man maa ëpp adversaire ci làmb ndax man samay nit rek laa bàyyi mais bu dul loolu ñëpp laay bëreel. Mhm. mu jugee ci Abdou juuf mhm. ma amaat fa tolof tolof. Mhm. si laa gëj daanoo nag si la après si laa toogee nag mu jugee ci Abdou juuf après laa ñëwaat ah, daan Pape Faye après yow claf euh, am na claf mm. claf kii mbëru démb yi. waaw euh, après boobu noonu da nga cee dugg. kalaaf mbëru démb bi waaw ba nga bëree ak ba pare. non bi ma bëree ak ba pare avant may dugg ci kalaaf bi daan naa Pape Faye. Mm-hmm. Euh, daan Aline Seyde. waaw sa combat ak Aline Seyde. Mm-hmm. bu dañ cee amoon blessure. waaw. dañ la cee pistolé woon. loolu mais dama gaañu woon daal ci tànk. waaw dama gaañu woon dama yoroon blessure bu méttee métti. Mhm. waaw su ma dëggoon sax làmb jeex mais maag Balla Gaye dama yoroon blessure. maag Balla Gaye sama ñaari gaynay xeex ma àtte leen ñu jàmm ci loxo moo nekk nii ci sama foor. mais su ko bakk Alioune Seye moom ne amoon nga blessure bu métti. bu ma dëggoon laa dëgg rek ma tëdd bàyyi làmb ji. Oh. mais noonu laa tax noonu la combat bi méttee neex nag. Mhm. ñu ah, bëre bëre bu bëri mhm. xeex xeex bu metti ma daan ko jël bu rëy. sur mhm. boobu dama ko téye di bëre bay fecc. Père Ibrahima daa tiit ba daanoog fëtee bi. te barki Rasulaay. noonu laa ko daanee. ah noonu laa ko daanee jël bu rëy. ma jugee ci Alioune Seye 2. après laa bokk ci kalaaf bi nag. waaw ñu joxaat ma revanche. mais boobu yow waaw parce que kalaaf boobu euh, mu ngi fekk ñoom Père Birahim bëgg a nekk ménager ménager yi di leen xeex. Mm-hmm. xam nga problème am ci làmb ji. taa yooyu yaa ngi maa ngi écrit Père Birahim Ndiaye. Mm-hmm. gars yi di leen xeex ñoom ñu ne paa yi duñ nekk ménager. micro xam nga après. ma neen man du ma wor parce que man Baye Fall laa ma ne man ku jaral na ma bañ a bëre. si lañ dem gis El Hadj bu dee 2S mu ne leen ñoom mu jàppale leen. defal organiser leen kalaaf. ñu tuddee ko kalaaf mbëru démb yi. waaw. man maa ci nekkoon Kër Diène. Euh, Manga troit naa Touré xam euh, am na mbëri ay Ndiaga am na mbër yi moo xam ne bëreetuñ gisatuma leen ci làmb ji. Mm-hmm. mais ñaata lañ euh, bi million lañ ma jox avance. maa góor a faal. ma mm-hmm. dóoraat ko mu daanu. ñu joxaat ma deux millions. Mm-hmm. maa kër jeen ma daan ko. Euh, kër jeen. ma daan kër jeen. dem demi final maa maa nga trois. waaw ah, maa maa nga trois nag. xam na làmb dafa yéeme quoi. Mm-hmm. ndam loolu maa ko moomoon sax. ndax parce que dañ ma jox ndam li. Mm-hmm. ma téye ko sama loxo. Mm-hmm. mais dafa am loo xam ne làmb jaru ko. ci côté mystique ci côté mystique làmb jaru ko mais su ma ko daanee. après su may ñib si ñi am ñu ci ñàkk seen bakkan. te loolu làmb jaru ko waaw làmb jaru ko. ma préféré perte ko. ma def say sacrifice sarax takkal sama yaram sax deret bi may dem ndax moytu deret ndax Baay Faal laa bëgguma lor kenn ñu dem mu daan ma. kon xamoon nga ni da lay daan. waaw mu daan ma. mais bi ma mu ma daanee li leen daal tamit ñaanu ma ko woon. parce que si bi ñëpp si ñoom la seen benn oto këpp. si la Ibou Ndapa ba léegi nii gis nga. tànk yi ah ma ñàkk ci te loolu làmb jaru ko. te yow loolu nga doon daw. waaw ah, moo tax jaralu ma ko woon quoi. ok mu daan ma. dem finaal jël ko. après si lañ ñëwaatee te gàtt kalaaf. Mhm. ñu tëgg ah. euh, mooy kalaaf boobu moo ko tëgg. moo ko tëgg. gis ni Saalum Saalum boobu yow bokkoon nga mën nañu ne yaa nekkoon ci au waaw parce que da nga dem ba ndax comme booy sax booy wax sax. nee mhm. nañ boobu la contacté ko. waaw boobu la lañ commencé jubo mbaru démb yeeg kii ñu waxtaan man ma leen man pare naa. Mhm. ñu ne noo kalaax bi Saalum di ci génn parce que premier combat ñu ngi ma jox assurance bu mbur mhm. waaw. moo ëpp ma doole parce que mu ngi doon peser ay cent trente kilos mais boobu man yokk naa sama poids maay peser ay cent dix kilos ëppee na maay vingt kilos mais man gëm naa ni kii dama koy daan. boobu euh, bi. Euh, classe bi premier mhm. ma jox avance euh, un cinq cent. mooy la sama poul man la. Mhm. Garga Mbossé. assurance bu mbuur Aliou Mané. Hmm. assurance bu mbuur. Hmm. mu nekkoon combat bu ñëpp ne Saalum mënu cee génn. te rey ko. waaw hmm. mu daan ko jël bu rëy ah. mu jugee ci assurance. lañ ma jox Aliou Mané. Aliou Mané làmb ji jotul yegg ndax yàqu bakkan bi laa damm. nga ah. ah. après deret bi mënul arrêté. gars yi dañ ko mujj rawale sax directement CTO. ma ko ci masawu ndax bëgguma woon gaañ nag. mais waaw parce que ñoo bokkoon saal di entraîné ndoo te ñoo war a bëre. fii Escaf mooy ànd ak Tyson ak Eumeu Sène mais ci biir entraînement yi sax dañuy foo ma la ko booy bu ñu demee bul xeex bu ñu xeexee naa la gaañ de da ngay ñëw bëree ñu bëree ku daan xam parce que ñoo juddandoo benn pikin xamante nañ suñu famille ma ne ko daal su ma sañoon ñu bëree quoi ku daan jël. mais bul xeex boo xeexee naa la gaañ. mu dëgër bopp jaww xeex mu gaañu. ma ko ciy masawu nag. waaw mu jugee ci Aliou nag lañ ma jox gar Mbossé. loolu combat bu kii sax. waaw combat ma bëggoon. waaw combat bi ma ko jëlee. bu combat bi desee deux jours dama def accident. moto. sama genou bi di metti sama kanam gi sama lex yëpp xoolee ko garçon yëg accident bi woo ma téléphone ma la ko noo mën naa bëre man gaañu gaañu mënumaa teree bëre dinaa bëre. boobu quart de finale euh, boobu pour man li ma jàpp demi finale la. ndax booboo ma desee damay daan rek jël paie. ku jël fee pied laa waroon dajal final. Mhm. man loolu laa jàppoon. ma ne garaawul damay bëre. Mhm. ci jour bi ma pare naan ay antibiotique pour wàññi douleur bi moo tax bi ma koy bëree dama ko njëkk a bëgg a mbot bi ma ko bëggee mbot mu tëdd sama kaw genou bi di metti mu diis si laa changé indi ko beneen côté bi mhm. ah dóor ko tànk dëpp ko mu dëpp kanam bi nga daan waaw. classe bi am problème. waaw après am na problème parce que pour man damay finaalu ñu ne non day defaat beneen demi final. Père Gaston. waaw li tax mu waxoon day def beneen kii. waaw parce que moom la rek xam nga Gaston moom sama papa la mais moom mooy loolu quoi. Mhm. ko neex rek moom loolu la gëm. Mhm. waaw dafa xaw a am xadar quoi. Mhm. maa ngi moom a yem foofu moom Baye Fall la quoi daa am xadar. après tax nangu woo. waaw nangu naa après négocier nañ. bañ joxaat ma super étoile maag super étoile ñu defaat beneen demi final. Mhm. ma daan ko mooy combat wu metti bi combat bi presque xeex la gaañante yi métti. xeex xeex ba mu bàyyi. parce que boobu moom dafa gëm ni ku mu door nga daanu ma la ko nag bàyyi baal nga dajal borom cour bi. Mhm. dinaa yokk cere dinaa dolli ñeex. Mhm. te li ma ko woon loolu laa def dañu bëree may xeex muy xeex ba mu bàyyi. mu ëpp ma avertissement ñu jox ma victoire. ma dem final. Garga mboose tamit comme fee l'an 2000 la jëloon pee Garga Mbossé daan ko ma maag Garga war a demaat final. Ah, ah, te fekk bëre ba pare. daan naa Garga. ñu war a bëriwaat final maag moom man bañu bañoon na bañu woon final bi sax. Mhm. parce que waroon nañ bëriwaat mais problème mu xaalis moo indi problème am ak Père Birahim parce que man kilifa kilifa laa mhm. moom moom mooy sama ménagère. Mhm. mooy sama kilifa. ndax moo ma yor. biñ demee foofu man demi final bi ñu ngi ma fay ñaata 4 euh, millions final bi mu bëgg a fayaat 4 millions ne day teg un million ku daan jël te contrat bi amul woon loolu final bi dañu waxoon 10 millions lay teg loolu moo indi seen problème ba Père Birahim ne bu deful loolu doo bëre mu indi loolu mu jël ki ma daan super étoile jox ko garga mhm. yàlla def super étoile daan garga jël ko mais man final bi maa ko jël parce que ah, ñoom ñaar ñi ko jël. Ah, maa leen daan. Mm-hmm. ki daan ñaar ñi jël final bi kay kooku lan la. <laughs> ah yow laay posé question ñaar ñi jël final bi ki leen daan lan la. ah, ah a neex tam. léegi maa daan garga daan super étoile léegi man mi leen daan. kan moo jël final bi. Ah, yow de yaa a kon mu ngi noonu <laughs> man maa ngi jàpp bi maa ko jël de. bu dee maa leen daan ñoom ñëpp. <laughs>